mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk liggéey bi tàmbalee ko ci jëwriñ sëriñ Baxaw Jeen sëriñ Moor Diouf sëriñ Ndonga Njaay ak mbooleem ci biir ñépp di nuyu waa kuréel bi di leen ziar di nuyu bu baax ak a ziar sunu gan gi fi ñëw man maa ne gan rekk waaye xam na ne du gan ci liggéey bi di sunu wayjur di sëriñ Babacar di rafetlu kàddu yi fi jàllale yépp xanaa dañoo yëgoowut sax waaye bu ñu yëgoowoon lii rek doy nag soññe jërul sax ma ci yëkkati kàddu ndax li mu fi wax moom mënees cee wax lu lu lu ko ëpp di seere seereel mbooloo mi ne moom niñ ko xamee ñun ñëpp rek xamewuñu ko ci dara lu dul xasida yi ban ko xamee ba léegi ci xasida yi lañ ko xam mook sama wayjur laa xam maanaam bi ma ñëwee Dakar dama koo fekk ak sama wayjur ñuy jokkoo ci lépp bisu xasida yi bu masaa ñëw toujours day waaxu ba ca palaasam ñëw ci pàkk bi ñépp mu yëgal leen ko ba ciir bi nga xam ne moom la waa Lambaay am ci bisu xasida yi lépp ci loxoom la jaar kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanaan lool wéral aw yaramam di ñaanal waa daayira bi tamit suñu boroom yokk leen tawféex njàng mi tege na ci yoon lool am na solo lool ni ko sëñ Babacar waxee rek moom daanaka moom lu mu la wax ci xasida rek bee nga jàpp ndax ni mu ko waxee dégg nga ko ci la juddu ci la yaru ku ko xam ci nga ko xam mbir yi nag moom daanaka soññaate gi ni ma koy faral di waxee rek man moom saa yu ma fekkee kuréelu xasida mu ñi nga xam ne nii dañuy jàng xasida man jàpp naa yi ñoom ñoo ma war a soññ waaye waruma leen a soññ ndax dañoo doon ñoo xam ne sëriñ bi moo leen fàgg woon moo leen fàggul boppam ñaan ko suñu borom mu may li leen mu may mu may ko jàngkati xasida yi ndax ba mu nee kafaani xafiizun maaniun jumlatal ida da cee teg wali qaada ahbaaban bihim ushiru nuska sun borom fegal na ma pexeem noonu yëpp yëpp yëpp ba ma fegalee pexeel noon yi ba noppi nag dama ommatal ay ay soppe yoo xam ne jaamu gi may jaamu yàlla ci ñoom la koy feeñale ci ñoom la koy fisali ñooñu nag kenn jiitu ca jànkati xasida yi ndax liggéeyal sëñ Touba buñ naa liggéeyal sëñ Touba dëgg dëgg dëgg mooy jàng xasida yi ndax boo ko tàmbalee def rek la ci des lépp day ñëw saa yoo defee daayira bay liggéeyal sëñ tuubaa ci xasida yi di ko jàng yaa ngi tàmbalee dajale ay àddiya yoon yónni yaa ngi jiima wut toolab àllarba yaa ngi tàmbalee dajale mbooloo ci li nga xam ne moom nga nekk yaa ngi tàmbalee sumb ay liggéey yoo xam ne lépp day jëm ci liggéeyal Sëñ Tuubaa kon liggéeyal Sëñ Tuubaa li ci jëkk mooy xasida yi te boo déggee léeg-léeg murid ko di ko wax buñ nee xasida yi ñu ne moo fi des ci liggéey mooy loolu rek ndax loo xam ne boo ko tàmbalee yi ci des yëpp ñëw xasida yi boo koy jàng sa jëmm lay njëkk a defar ba nit ak caaxaan saa yu la gisee rek du la ñeme ndax ak tey moom bilislaam lislaam ñëwee ba léegi mi ngi fi ku la gën a jege yàlla moo lay ëpp ak tey te jegeñ yàlla mënta weesu liggéeyal sëriñ Tuubaa ci xasidaam yii ndax mooy jëf ji xam ne nii jëf ju mu nangu la jëf ju yàlla suñu boroom nangu la jëf la joo xam ne tamit lam yusbax ila misliha kenn yàlla mës koo fiixal mu def lu mel ni xasida yi lu jiitu sëriñ bi mësta am sunu sëriñ daanan wax naan dee leen fonk xasida yi dafa wax ne sëriñ xamsatu jaxate daana wax naa dee leen fonk xasida yi ndax yéegi na mbër ñu ne ko yéegi na mbër mooy lan mu ne buñ daan buñ noddaa ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa da daan digle ne ni ngeen ma ñaanal ñaan gii muy alwasilata walfadila muy li ñuy wax allahuma rabba hadihi daawati taama walsalaati alqaima aati sayidana muhammadan alwasilata walfadila waldarajata alrafia wa baathu almaqaama almahmuuda allazi waadta innaka laa tuxlifu almiiaad maanaam almaqaamu almahmuuda ak alwasilatu wal fadila dafa doon béréb ci aljanna boo xam ne nii kenn rekk la ko yàlla xaroo muy kim gën a sopp ci jaamam yi ne bu ëllëgee mooy doon dëkkuwaayam ci aljanna kenn rekk la koy dëkkoo ci saahir niñ ko xamee waxal waxut yónnent bi sallallahu sax ne ko yaw la te ku ne xam ne yónnent bi mooy soppeeb mooy soppeeb suñu borom moo ko gënal ci mbindeef yi mu dem ba bàyyi koo fi nekk saa yu ndéggatee ak nodd mu daanu ni ngeen ma ñaanal alwasilata wal fadila boobu bi loolu amee ba ku baax ki ñëw Cheikh Ahmadul Xadim di taalif xasida yi di ko jëme ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ci liggéeyal ba borom yéege ko ca maqaamu moomee di alwasilatu wal fadila léegi yéeg googu mu yéeg ci alwasilatu wal fadila moo tax sëriñ xamsatu jaxate ni dee leen fonk xasida yi ndax yéege na mbër mbër mi mooy kan yonent bi sallallahu alayhi ci lan la ko yéege alwasilatu wal fadila kon xasida yi doonu tagg rekk niñ ko xamee woon nga xam ne dangay ngay tagg nit ku baax ni ko saxaaba yi daan defee daan tagg yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàkkaarloo moom ci ay noonam di leen ŋàññe bu ŋàññee yónnent bi moom it ñoom it ñu ŋàññe ko di seetal ab deram ci jamono jooju di ko di ko xamle ci gépp fànn sëriñ bi tamit bi mu ñëwee doon liggéeykat yooyee di ñaan suñ boroom def ko mu mel ni xasaan ak kaabu ak ñi nga xam ne ñoo daan tagg yonent bi ñépp bi mu koy ñaan mu dema dema dema dem ba mel ni ñoom dema dema dem nag ba far mujj weesu leen moo tax mu naa sama tagg wii weesu naa ci kaabu ak xasaan tagg wi may tagg yonent bi wa fi madaxihi jaawastu ban wa xasaana dem na sax banaa qad sirtu lil muxtaari kal jaarayni mujj naa far mel ni dëkkandoo yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya ko gën a jege gën koo sës muy Abu Bakar ak Omar ibnul Xataab loolu lépp ci tagg yonent bi sallallahu alayhi te tagg gi mu koy tagg nag day jariñ yonent bi day jariñ yonent bi xam nga tagg liñ ci xaman mooy ki nga xam ne dafa ñëw doon sab géwél di la tagg day ñëw tagg la ngir nga may ko dëgg la sëriñ bi jaar na foofu ndax wax waxal na boppam ne tagg naa yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam mu may jox di ma jox di ma jox ba ne ma ahmadu jeexal naa kaay ma yóbbule ca ka nga xam ne moo moom moo may jox mu jox la jàpp ci loxoom ba ci suñ borom tabaaraka wa taala waaye nag téewut tagg gi mu koy tagg di ko yéege noonu ñu ko nettalee ne moom la sëriñ sa wax Xamsatu Jaxate booy seet ahbabtu rabbal alamin bi bi mu jeexee mu ngi wax naan yow suñu borom def nga xasida gii maam ñaari xasida yi muy ahbabtu ak gi ko jiitu ndax xam nga ahbabtu booy seet ji naan nii ñu ko tegalee am na weneen tegaliin wu bokkuteg wi woo xam ne ni euh, malaktu mooy jëkk malaktu afdalal basar moo tax sax sëriñ bi boo miinee ay mbindam bu waxee bismillah julli ci yónnent bi da ngay gis wala mu ne bismillah rek da ciy teg mubaarakul ibtidaa yi wa maymuunul intihaa yi boo xoolee ma mafaatihul jinaan bi boo demee ba ca malaktu foofa ngay gisee mubaarakul ibtidaa yi kon boobu ci cosaan boobu moo jiitu woon beneen tege ci beneen tege ci ba ahbabtu ñëw moo tax mu ne ñaari xasida yi muy ahbabtu ak xasida ci gi ci ginnaaw def nga ko maanaam defal nga ci yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne nii kenn mësu koo am te kenn duutu ko am defal nga ci saxaaba yi tamit loo xam ne mu kenn mësu koo am te kenn duutu ko am ci lu leen di jariñ te di leen bégloo kon xaside yi day jariñ yónnent bi sallallahu alayhi wa li tax mu ne mawaahibu naafi saa suñ ko fi ubbee wala saa yuñ ko fi jàngee wala saa yuñ ko fi bindee rek bégal nga yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu fàgguteef googu moom lañu sëriñ bi defal ñun moom lañu defal fàgguteef gi mu ñuy defal mooy defal na loo xam ne nii saa yuñ ci saa yuñ ko xoolee wala ñu jàng ko rek yónnent bi bég yónnent bi ku ko bégal benn ab yoon donc sak fay yàlla rek moo ko xam ne xajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa zalika inda allahi aljasa aw kama xaala yow dey mi doon noon noonab yónnent bi danga xas yónnent bi man ma ñëw tontul ko ci xasida yooyu mu daan bind daan ko tagge yónnent bi waaw mu ne ta tontu googu ma tontul yónnent bi maa ngi ci yaakaar ab yool gu rëy rëy rëy ëllëg yónnent bi salaa alayhi wasallam da ko ne sab yool ci tontu gi ma tontul mooy aljanna bu ëllëgee aljanna nga jëm mu ñun ñi nga xam ne saa yoon xëyee jàng ma waahibu jàng ma faatixal bisri jàng mi daal di wa aqlaami ak yee ca des ak yee ca des te saa yoo tiimee téere bi di ko jàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam na sëriñ bi ci boppam wax na ne dem naa ba toll foo xam ne mënatumaa bind saafara ndax saa yu ma yëkkatee sama xalima ne damay bind saafara yon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ci laa ci moom laa ko jëlee ma far jëmee ko ci moom wa xayrul wara yanxu xurufiya bil basmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu xoolee sama xaraf yi rek day muuñ ak mooñ la koy xoole kon ndokkee ñun ñi nga xam ne nii ñoo koy yëkkati moo tax ma ne soññu leen moom xam naa du yomb <laughs> yéen kay yéen a ñuy soññ <laughs> waaye nag ñi ngi sant bu baax a baax xëw ma fu heure bi toll waxtu waaye di jaajëfal ñépp rek xam naa daal lii daal moom dafa doon loo xam ne nii ni ma ko waxeen rek fan yee mbir la moo xam ne nii génn ci sa bopp daal la ñuy wax waaye dem naa daa ci bokk moom man defe naa wërtam ban ko tuddee daayira ne fédération làmbaay boobu la ci ñëpp bokk xanaa kay yow yaay ñëw ne génn naa ci sama bopp waaw ndax ñun ñëpp Sëñ Tuubaa lañ yaakaar amuñu ku dul moom suñ lépp moom la dangay dégg sax taalibe yi ku ci ñaan ay milliards naa milliardaires yi Sëñ Tuubaa maa maanaam yow lépp loo am jàpp nga ne Sëñ Tuubaa nga ko jox moom nga koy delloo kon buñ taxawalee lu mel nii mu doon loo xam ne lépp sëriñ bi la dara lu dul mbiri sëñ bi bokku ci ba pare tudde ko sab gox kook kon ñépp ca lañ bokk xanaa ñàkk koo yëg kay waaye ku ko yëg ca nga bokk te yal nañu yàlla musal ci génn ci te ippi tamit dafa doon loo xam ne doxin wi man dey bi ma ko yëgee seetlu ko dama doy doy goo xam ne ndax lépp lu ma doon séenu ci daayira da cee daje da cee daje te dañoo tàmbali nii sax waaye nan dem ci kanam insha allah lépp mi ngi ci buñ jëlee sart yi nga xam ne moom la ki tegoon daayira muy Serigne Cheikh Mbacke yim tegoon ne lii mooy doxalab daayira te ne la ñuy nekkee ci daayira buñ ko fonkee jëfe ko lépp lu ñu bëgg mi ngi ci biir mu ngi ci biir mi ngi ci biir daayira bi mi ngi ci biir mbooloo mi gën a jàpp rek ni ko ku baax kiy waxe ci xasida yi rek ci la lépp ne wax boobu maanaam dafa tënk lu baree baree baree bari xasida yi moom saa yoo ci dee yëngu rek soobu nga ci liggéeyal sëñ Tuubaa te liggéeyal sëñ Tuubaa mooy jaamu yàlla yéen ñii sax yéen yéen ma ko gën a xam saa yoo ci nee rek da tënk ci lu am njariñ rek ci la lay tënk booy wax lu am njariñ ngay wax booy def lu am njariñ ngay def ku la gis xam ne ci lu am njariñ nga jëm dangay mujj sa jëmm sax ku ko xool sëriñ bi la ciy gis te lépp sëriñ bee ko defar def ndax waxat na ko newoon na sama xasida yi féete na kaw sëriñëb tarbiya ak sëriñëb tarqiya maam day defar jëm bu ko defee daayira nag moom ni ko sëñ bi waxeen rek sëñ Seex Mbàkke dafa waxan ne euh, ñetti taa ñoo ko tënk ñetti taa muy teg teew teel maanaam dangay teew ba pare di teg tey teel a ñëw nag boole ci loolu moo tënk daaya loolu nag buñ ko defee boole ci tamit di waxtaan noonu ko jëwriñ ji waxe léegi maanaam di def ay communication di jiima waxtaan ci lépp lu ko jëmee kanam ak lépp loo xam ne day former ñi ci biir daayira bi ak luy former sunuy ndaw ndax fi ne nii daayira li ci ëppati solo bokk na ko ci li ko gën a gaaw a màggal euh, maanaam former ci sang njaboot muy ñi nga xam ne nii ñoom la la yàlla sedd muy sang njaboot ñooñu nag ni nga leen di former da ngay jaar ca jaarukaay ba ca tàmbali ba li jëkk ci lu ñuy tàbbal ci boppam xale mooy alxuraan bu ca jógee nga xamal ko xasida yi xamal ko téere Sëñ Tuubaa yi muy téere xam-xam yi teel koo sóob ci daayira bi xamal ko ne ko lii mooy sa sa ci lii nga war a dox muy teew nga xam ne tey jii ñun ñii kuy ñëw fii tey jii boo yoree sa doom ju ndaw joo xam ne nii mën naa dox tàmbali naa xam dara dangaa war a jàpp sax ci loxoom mu ñëw bu ko defee bu yaroo noonu ci dayre bu màggee rek du aajowoo sax nga naa ko demal bokk ci daayira ba day day day juddu judd rek nekk ci day juddu rek nekk ci loolu tamit ñu di ko bàyyiwaale xel ak lépp loo xam ne nii rek defe naa doon naa ko wax fi fan yii loolu moom fan yee ay naal la yu ne ci kanam ndax leen am na lool moom kàttan moo koy def ak doole waaye nag kàttan ak doole jooju lépp mu ngi ci kanam mi ngi ci biir mbooloo mi mi ngi ci biir communication boobu tamit sëñ baabakar doon wax buñ demee ba am ko lépp lu jëm ci bi yar ak jàngal ndaw ak yokk ci xam-xam mi ngi ci biir te maanaam lépp loo gis nag muy yëkkatiku jëm kaw li nga xam ne moo war a doon fondement bi mooy xam-xam boo xamee ba pare nag doog jëf waaye jëf ba pare doog ceeti xam loolu safaan maanaam day day safaani moo taxan sëñ bi ne al ilmu afdalu kon xam li ngay def ba pare doog jëm jóg di ca def di ca jëm loolu moom lu mënta ñàkk la loolu lépp mi ngi suñ kanam xam naa kon niru na ne waxtu yi mi ngi xaw a sori di ñaan rekk sëriñ bi gën noo jàppal boppam dolli taw tawféex ba lii nga xam ne nii ci la nekk nii soobu ci tàmbali ko mu defal na ci lu kawe suñ njort di ñaanal sëriñ Ngom mi nga xam ne tamit moo yore wàllu média bi moom it lim ci yéene ci liggéeyal sëñ Touba moom média bi moom lépp liggéeyal sëñ Touba la suñ borom defal ko ci lu kawe njort di sàkku ci yéen ñaan tamit wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi